rabbi shrah li sadri wa yassir li amri hlul uhdatan min lisaani yafqu xawli mbokku al Almadina FM deli swat nañ fi ci al Almadina FM 100.8 di emet fi ci Bourguiba bu dee Kaolack la ngeen mën ñoo déglu ci 98.8 su dé bitim rew nak yéen ak ñuy déglu ci 3w ngeen cliquer ci Almadina madina 100.8 su ko défé rek ngeen mën ñoo déglu ci bitim rew seen émission Wadduha ki leen koy présenter Cheikh Fall Sow di ki leen koy defal ànd ci ak ki nga xamné mom moy Mara Cissé ñu xam te ne ne ku ñu ragnit la Euh, ci wàllu xam-xam ci li nga xamante ne nii moom mooy à travers le Sénégal euh, émission yi passé tamit defoon nañ ko ñu def ci émission yi am solo ak li nga xam ne waxtaan ci téeréem bi nga xam ne moom la bind muy kitaabu Wadduha di téere bu am solo boo xam ne dafa fees ak njëriñ euh, boo xam ne aussi tamit dana wax ki nga xamante ne nii mooy jullit bi nan lay laabee nan lay sellalee ak nan lay jaamoo boroomam ak nan la mën a ñaanee ndax comme ni ñu waxee rek tegginu ñaan dafa am yoonu ñaan aussi dafa am ndax nit ki moom ne tamit sax nit ndegam nit rek boo ko ñaane doo ñëw rek daal di tëb rek ne gëmax ci kawam naan ko may ma kon defe naa ne téere bi ëmb na lu bëri mhm. euh, loolu moo tax ñu dellu siwaat tamit tey euh, ci émission Wadduha war a indiwaat leneen lu bees mais balaay boobu damay bàyyi ki nga xam te ni moom mooy Mara mu daal di nuyoog mbokk auditeurs yi euh, su ko defee rek comme ni ma leen di waxee yéen borom xam-xam yi saabaaru dugub ngeen <laughs> saabaaru dugub foo ko dóor rek am lu fa ruus <laughs> kon ñu bàyyi la nga nuyoo maanaam ahasubillahi min rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahul qawli bismillahi lasi la yaduru maha ismihi sayun fil ardi wala fil samai wa huwa samiun alim alhamdulilah rabbil alamin ndax ñaanoon nañu yàlla toogaat di yéen jotaay seen émission Wadduha fii si almadina borom bi jalla jalaaluhu may nu tey nu amaat ak yéen jotaay seen émission Wadduha ak suñu mbokk Cheikh Sow fa tabarakallah di ñaan commencé ko si bismillahi rahmaani rahim àgg ak alhamdulilahi rabbil alamin di nuyu di siyaara kilifa dina yëpp di leen ñaanal yàlla yokk wéral seen cër yàlla yokk guddal seen fan di ñaan réew mi yàlla yokk fi jàmm yàlla yokk fi dal yokk fi sutura yokk fi naataange dàq fi bekkoor dàq fi lépp loo xam ne safaan bu yàlla gër gërëmul la loolu moo nekkoon nuyoo bi sëñ Cheikh. ah jërëjëf di nuyu euh, bu baax tamit suñu technicien bi. sëñ Fall ajjuma bu nekk sëñ Fallou. <laughs> Eh, jëf euh, sëñ Mara yow tamit ñoo ngi lay nuy bu baax baax baax tamit. Euh, mhm. di ñaan yàlla dool dolli say fan euh, dool la gën a dëgëral sa taxawaay. tamit defal ko mboolem auditeurs yi ñuy déglu. Mhm. tey nag xam naa ne fi may duggee moom mooy tey moom du ma dal ci seen kaw sëriñ si du ma <laughs> waagul ci kaw kii bi ndax <laughs> am na ñoo xam ne dañu wax ne duñu sa war a def ak man émission ndax léeg-léeg damay dal ci kaw sëriñ si dal ci ma ne leen déedéet bëgg bu sell rek. wallaay ne Mara. kenn mhm, umpante wut ne. surtout rawatina bi tey moom naa ne dinaa ci wax ci kanam Mm-hmm, mm-hmm. alxuraan lu wér la. Mm-hmm. bu lu wér kii nga xam ne tamit lépp lu ci nit mu kii rek mu lënt lënt bu ci duggee rek gis ko. dëgg la dëgg la mais nag comme que tey jaxasoo bari na ba kenn xàmmeetul la feu est vrai. waaw ndax dañ naan dañ ne waaja ak waaja. waaw suñ la doon nettali ne waaja ak waaja la. waaw boo maandoo da nga naan ah loolu da xaw ma kan la. effectivement waaye nee nañ waaja ak gaaña foo ko déggee rek waaja la. effectivement kon waaja la loolu <laughs> am bëree bëri bëri ngi ngi ngi am yu nuy wax. Mm-hmm. war na noo seetaat sunu bopp bu baax. Mm-hmm. si nag jox yàlla li mu moom. effectivement te tege si siraatal mustaxim. Mm-hmm. tey fa la xam ne yàllaay lépp. na koy waxee yàllaay lépp. effectivement loolu lu bëree bëri bëri yooyu taxaw. Eh, yooyu dana koy waral man la. Mhm. man la danaa nangam si nangami minute man la bu ma la nangamee bu ma la nangamee. Mhm, te yàlla yi lépp. gars yi bëri nañ loolu fa tabaraka laa loolu du mbir yi. Mhm. alxuraan na ko waxee lu wér a wér a wér la. léppam barke la lu si ni dog it war mën na koy gis. waaye tege sa yoon ba. te mooy nga delloo lépp yàlla. bu dee la nga say sàkku. bu dee looy bind la looy commencé bi ismi. kon bi ismillah kon nangu nga ne du yow yàlla la. fa tabaraka laa jox lépp yàlla def sa mhm. tabaruk lépp loo sa doog yàlla mën na la ko may mhm. moo xam bu dee tawat la mën nay wér su dee aajo la mën nay yàlla mën na la koy saafaral mhm. su fekkee fa tabarak laa yeneen ak leneen leneen la yàlla mën na la see defal ndimbal tey nag lenn maa faranaa fil kitaab bi min sayin amul lenn loo xam ne bii lu lu nu mënula fekk si alxuraanul karim la rawatina jamono ji mhm. comme ni ma koy waxee lu bëri bëri na lépp tey la yokk mhm. waaye tey la jafe-jafe yi gën a bëri effectivement <laughs> loolu am na solo sëñ mais xam naa ne tey moom mhm. euh, téere bi dinaa si wax ci kanam ndax téere bi moom daanaka gis naa si njëriñ yu baree baree bari ndax mu ngi lay wax nooy laabe mm-hmm. nooy sellale mm-hmm. nooy jaamoo sa borom mm-hmm. nan ngay ñaanee tegginu ñaan dëgg la ak yoonu ñaan wallaay wallaay defe naa ni loolu lu baree bari mais tey damay wax ne tawatu poos dafa ak tawatu yaram wallaay ndeysaan ci toll nañ jamono bi nga xam ne <laughs> sëñ Mara gars yi tamante dëmb bi tibbante tànk yi bari na te gars yi dañoo iñaan du ñu bàyyi lu baax wallaay wallaay ndeysaan lu wér tey bëggoon naa ñu waxtaan tuuti si wàllu njabar. Mm-hmm. ibtaalul sehr. waaw lu wér lu wér. ndax yéen a ngi doon wax ne <laughs> yonente bi daana wax ne njabarkat yi bu leen leen gisee na ngeen leen rey. wallaay ndax dañuy yàqaas réew. wallaay wallaay tey de ku fi boo motul nga dem cour d'assises. Mm-hmm. tey moom laa mm-hmm. bëggoon ñu duggee tuuti euh, sëñ Eh, jërëjëf sañ seex muy lu am solo mm, na ma koy waxee jamono ji mm-hmm. foog naa ki niy seetaan kenn mm-hmm. bëggula mel noonu mooy ki nga xam ne yàlla teg na leen nattu nga leen ni romb nuy ne si mbedd ak amaana sax ña duñu sol yére mm-hmm. yàlla na yàlla teggil nattu yi ñëpp waaye xaj na ñooña la ñu bëri amul sa ñoom soxla waaye ku dul ku yàlla dimbalee kës tuut rek ñàkkul am na koo xam ne man nay jël ay pexe jëmale la ko. Mhm. mooy tax toujours nit ki war nay faxasu na ma koy waxee. Mhm. raxas yaramam ba lépp lu sa nekkoon. Mhm. te eh, yu was fi su fi fii si duuri naas mi ne jëndati wanaas loolu tegtal la si nee naa yonent bi yàllaa ko indiloon garanté inaa ko fay nakal mustahziin moo ko indi garante loon tamit ne ko wallaahu yaxsimuka mina naas. tegtal la si nekk njabar lu wér a wér a la te dina gàllankoor nit gàllankoor yu rëy rëy rëy mhm. mooy xam bu dee alal la alal ja tasaaro mhm. su fekkee ne eh, eh, macha allah yaram la yaram ba mën nay fasu xam nga ki nga xam ne bi fa tabarak la eh, am na seet. Mhm. wéet ak seetam te bu toogee si itam du jóg. Mhm. dama koy waxee loolu yaa quelque chose. effectivement yaa quelque chose ak yeneen nag yeneen ngay gis ki nga xam ne bii place ba mu yor. Mhm. amaana si taabal la commencé dem ba mu yàgg mu nekk kantin mu nekk as. cantine dem ba mu yàgg nekk magasin. Mhm. moom mi ko doon def mu ngi fi ñoom ko doon defaloo ndool nu ngi fi. Mhm. nam ko doon defee la koy defee mu mujj dem ba mu yàgg mbir yëpp mel ni luy wëlbatiku. Mhm. <coughs> loolu yaa quelque chose. déw tëju euh, doomu ba laa nit nee na ma. wàccee euh, sama magasin def naa si trente tonnes. ceeb ba jeex na te gisuma xaalis. Mhm. xam nga dogguma la keroog dama ci def émission nañ ci wax. Mhm. mu am ku ma woo mu ne ma Tamba la nekkoon. Mhm. magasin loolu ngay wax noonu. dafa dem ba raaf. mu am beneen mais boo xam parce que jaay na kër yoroon 4 millions. mu am ñu njabar ko ne nee na ma yoroon naa fi ñaari magasin ñeenti kër. benn kër moo ma te garanti naa ko. te nam doon liggéeyee lay liggéey rek. yooyu nag mooy dañ lay booleeg ñoo xam ne bii. foo nar a jag rek noom nu yàq. lu nar a jag nu yàq boo ko defee ñu si bari bëri nag amaana xaj ña ba nu ñàkkee gëm dara. Mhm. dana koy waral ak tamit ba ngay jóg fekk c'est trop mhm. mais daal yàlla dimbale na nu si pharmacie Wadduha yàlla dimbale nu wattu na si loo xam ne lépp luy njabar. Mhm. si kàttanu yàlla daf koy faxas. tey belende lay doon ba macha allah. nekkagul si papier boobu si yi mu jéggéen la parce que nekkagul en ah, belen lay doon tamit ba lépp loo ni sànni day dellu si moom si mhm. kattanu yàlla mhm. loolu yàlla dimbali nanu fan yi sunu donga yi góorgóorlu nan si ba dajale nan si lu am solo mhm. nga xam ne képp ku ko itewoo boo demee si barab yooyu nga xam ne pharmacie bi ma nga fa moo xam Point E la wala Rufisque wala daara ja géejawaay si kattanu yàlla su fa demee dina ko mën a am kon daal loolu ba teng sa la mu ngi noonu boo ko dóoree si miir mu ngi noonu ndax dafa bëri ñu ma doon ne loolu itewoo nan ko si kattanu yàlla loolu mu ngi si daara ji ji kon adresse bi moo nekk nii bi bu nekkee ne bu Géejawaay bi moom laa nekk nii. Mhm, ci pharmacie bi 77 mhm, bi. 617 70 44. bi moom moo nekk fële ca Géejawaay. 77 617 70 44. beneen bi nekk waaye am na nag ñu ma woo nee nañ ma yéen ñu naqaree jot ngeen. wallaay parce que léeg-léeg nee nañ day sonné sonné sonné kenn du la jël. am na ku ma ko wax. beneen bi moo nekk xaw ma 70. 104 79 17. même adresse bi Géejawaay. Géejawaay uh-huh. Uh-huh. Mm-hmm, mm-hmm, waaw mm-hmm. bu point E bi moo nekk lan moo nekk 70 euh, bi. 922 23. 75 75. d' accord su Rufisque. 77. 262. 36. 28. 28. 77 262 36 28. yeneen régions yi nag. ku eh. ku soxla ci mbir yi ci bagage yi nag. xanaa ñoom eh, amuñu si borom bi incha allah. Hmm. sunu jokkoo rek yàlla mën na nuy dimbale fu mu nekk rek yàlla mën nay def. moo jàppandi incha allah. d' accord léegi ñu ko waaye daan na si ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp muslu. ndax maa jeextum bi xii sixra inna allaha sa yubtiluhu mhm. tegtal la si ne njabar am na waaye njabar mën na toj. nan koy waxee rek fa tabarakallah. Mhm. nu reen tollu rek reen gën na koy xóot. dëgg la tey lu bëree bëree bëri ngi tënk looloo koy tënk. Mhm. dinaa di wax na liggéeyukaay yu bëri. ngi mel ne neen njabarante bi la. bu kur kay. wax ko ci kaw kër yu bëri kër <laughs> kër yu bëree bëree ngi doy waar léegi. Mhm. noonu la nee naa kër bu mujjee dem ba bu demee ba xaw a nuru. cumbukaay mhm. day xaw di doy waar. yooyu yëpp nag macha allah xol yu lëndëm rek. Mhm. waaye macha allah noonu koy waxee nit ku nekk boo doon koo xool da nga say gis sa bopp. ndax dañ ne ku ne sa résultat wu ren mooy la nga yéene nit ñi daaw. dëgg la nga yéene woon la nga ma yéene woon daaw noonu la la yàlla def nga mer ren. fa laa kon nu ngi dell gën a ñaax ñëpp yi mm-hmm. commencé ko sunu bopp nu gën a laabal xol yi mm-hmm. gën a xam ne àddina yàggul mm-hmm. te it macha allah dañ fee ñëw pour liggéey léegi loo xam ne dinañ ko mën a bénéficier woo ëllëg fa laa te dinaa di wax ne la gën a doy waar mu di dëddale képp ku ko yéene woon bàkkaar gënu koy rey Mm-hmm. mooy dëddale diggante doom ak way jur mm-hmm. diggante jëkkër ak jabar diggante patron ak surgaam mm-hmm. fa loolu te mu bëri lu mu am naawtal ni nekk si barab nu génne ko dinaa di wax ne am na ñoo xam ne ndakaaru la muy yaatu yaatu la muy yaatu yaatu yëpp xat nañ si ñoom xat boo xam ne. waaw pantre sax koy ëpp amaana. effectivement effectivement <laughs> naawtal di xeetu dëddale yu doy waar. Mhm. dana koy waxee nit ko yenoon quarante kilos su loo xee tuuti sonn nga gis ñoo xam ne xañ na ay tonnes la ñu koy yen. Mhm. yooyu yëpp fa laa day lu si mel ni kort mhm. euh, di liggéey ak jinne yónni ko dara mu dem ba barab sàngam. Euh, def fa kan ko sànni naka sudul noonu yooyu yëpp. ngir nit mucc sa fa tabaarakalaay loolu nu lay indi si pharmacie Wadduha bokk na si. Mhm. te tegtal yoon la boo xam ne bii képp koy jëfandikoo lu la nit yéene te nay nekk jàmm si kattanu yàlla. si kattanu yàlla. Mhm. mais xam nga man euh, sëñ Mara. Mhm. Alima dafa lu ma si jaaxal mooy. da wax ne ñun ay jullit réew mi ay jullit lañu quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans. ay jullit te ay jullit. ñooy yëkkati di def loolu ci kaw moroom. wallaay wallaay lu wér a wér man loolu lu ma yéem la. moo tax moom. ni ko borom bi waxee rek yow ma tubla sarail wallaahi <laughs> ni ma koy waxee. Mhm. ni ma ko doon waxee keroog am na xol yoo xam ne ku nu ko ubbi loon. dëgg la da nga yéemu lool lool lool ndax fa nga tegoon kii si ne jàpp naa ne nii la mel. Mhm. ak la ngay fekk sa xol ba soree na. Mhm. te li ñu tardel sëñ Seex. wallaahi Sénégal mën na noo àgg fu nekk. la su xol yi la bu xol yi raxasoo. nu yéenante jàmm na ma koy waxee rek. kër ga day jag ba jag dëkk ba jag réew mi yëpp ay jag. Mhm. mais seetlul fu mu nekk boo xëyee suba am promotion ñu bëree bëree bëri danañ la ko yéene. dëgg la waaye am na ñu bëree bëree bëri loolu dana leen seene. dëgg la te yéene la ko gën ñaan yàlla mel ni yow. su ko defee macha allah. Mhm. su tollowul yow ak yow tamit yàlla dana ko jox la ma tollal moom. tey macha allah nag. Euh, yalla bindee noonu jamono ñëpp mun noo yem. dëgg la ñëpp wanal fadala bi yadillahi yootehi man yasha mhm. ni ko waxee tamit ba pare ne man lay soob ma yëkkati nit ñëpp gis ko. Mhm. man lay soobi nit ma am fa ma ko tollalee yooyu yëpp. nan di mhm. gën nangu. dogalu yàlla. te gën a for xol yi te gën a nekk benn. effectivement xam nga mais loolu nga wax quatre vingt waaw bu fekkoon ñëpp ngi si. santaane. Mhm. di moytu tere. Mhm. kon macha allah dañ na gën a feeñ. Mhm. waaye quatre quinze pour cent musulman. te boo yoree sa oto <laughs> boo ko déggul gar boo ko déggu dénkul gardien. amaana boo xëyee dana la. danañ roj dindi sa benn pana. effectivement si réew moo xam ne ñëpp dañuy woote woo jullit lan mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Mm-hmm. loolu war noo seetaat sunu bopp si lu bëree bëri bëri. loolu am na mm-hmm. solo. daal xam naa loolu moo tax gars yi bu ñu may wax damay sell li dama daal bàyyi ko yàlla ci ma ne takk di nangu di sangu di suuru. wallaahi li des nag ma bàyyi ko yàlla. <laughs> lu wér a wér. waaw kon naa ko wax eh, suur tag eh, yooyu. mooy sangu. waaw suuru. sikkar saraxe. nee nan soo ko dee dëkk yi def mën nay am juróomeel ba yomb la te mooy sañse. Mhm. Eh, fa tabarakallah surtout jamono ji. Mhm. surtout jamono ji te surtout jamono ji. mu mhm. fàttaliwaat rek mbokkante ne rajo Almadina FM ngeen di déglu 100 point 8 seen émission Wadduha euh, ki leen koy présenté di Cheikh Fall Sow ànd ci ak ki nga xamante ne nii moom mooy Mara Cissé di borom xam-xam dëkk fële ca Géejawaay. Euh, bind téere bi nga xam ne moom mooy kitaabu Wadduha di fees dell ak euh, njëriñ. am mbégte bu baax nag ndax macha allah. nit boo na moom nekk ba Australie. ne <laughs> loolu mbégte bu yàtt la macha allah man de leen dong lañ doon jàmbat ci man léeg-léeg am ñu ma woon ne ma waaw ki nga invité woon da woote ci numéro bi ba sonn kenn du la jël. man xam naa amaana yenn heure yi la sëñ Seex. ndax macha allah. Hmm. ku ñëw daara ja xam ne 9h ba 18 maa ngi si tey doomu aadama yi. effectivement 9h ba 18h. Hmm. te xam ne woonu benn numéro. effectivement waaye yenn saa yi day am yoo xam ne boo sa nekkee amaana wuy téléphone du yomb. effectivement dëgg la ah. la kon loolu dong nga taa de. Hmm. kon nag mu ngi ma koy woo di ma waaw euh, mhm. gis nga keroog dama fay dalal aaw euh, moom moo yore banqaas bi nekk ministère de la santé. Mhm. ci wàllu bi nga xam ne mooy médecine traditionnelle. Mhm. ñu ci waxtaanee lu bare bare ma ne lan moo tax tey. ñu yab borom xam-xam yi. c'est parce que ñenn ci ñoom la. ndax boo xoolee OMS en 1978. dafa d'accord ne médecine traditionnelle dinañ dem ay jëm dina def ay jéego yu jéggi dayo yoo xam te ne mu reconnaître la médecine traditionnelle <laughs> c'est parce que am na lu ñu kii ñoom kay ñoom ñoo xamul lu ñu yore ñeen ñi <laughs> ba tax ñu yàq métier mi ba tax ñu yab leen <laughs> waaw dëgg la dëgg la donc mais ni ngay def nii waar ni ma ne ko ñun ñaax leen faj leen bindal leen jox leen. wallaay wallaay waaye toog. ah naa faj nawet mën naa faj siiti mën naa faj xam nga <laughs> ah, yooyu <laughs> yàlla danoo dimbale si si si nee naa ba amee waajur boo xam ne macha allah boo ko waxee ñu bëri xam ko. Mhm. nga judd si loolu màgg si mu nàmpatal la si. Mhm. la ko yàlla dénkin mu am lu mu la sa dénk. Mhm. boo gëmee sa bopp tuuti te jubal. war nga moytu yu bëri. mooy tax ñun alxuraan la ñu xam. macha allah it danañ gëstu leneen mhm. waaye sunu lépp lépp lépp lépp alxuraan la fa tabarakallah am na solo loolu it nangu si sant yàlla mooy tax lépp lu ñu liggéey. Mhm. baas ba quatre vingt dix neuf virgule quatre vingt dix neuf pour alxuraan lay doon. Mhm. fa tabarakallah it noonu nga koy waxee nuy gën jox yàlla la mu moom. ndax allahu saafi. yàlla mooy saafara. dinaa koy wax lu bëree bëri nit ki sabablu lay man ak def tabarruk ak tawassul moo xam mm. si alxuraan la mm. wala bu dee dafa dem sa docteur mm. malade ba docteur mën na koy teg loxo xelam dal mm-hmm. bu ko defee yàlla danaan a ah, jaam bi yaakaar na tey yaakaar gi mu ko jëmale si jaam bi bu ko laal mm-hmm. kon naa sa dugal sama yërmande dëgg la may ko sifa mm-hmm. may ko saafara borom bi du tas yaakaar. dëgg la doomu aadama yor loolu waaye borom bi amu mooy tax boo ko buñ ko delloo lépp. fa tabarakallaa loolu am bëri bëri bëri dana gën a tege si yow bu Baye Niass Tandian mm-hmm. sama xarit maa ngi koy wax ma naan ko Mara laay dalal mu ne ma wuune ku yaru te baax wallaay ndeysaan eh, Baye Niass mu ngi woon fële France Paris na bokk lépp dëgg la effectivement dëgg la eh, eh, kon daal ma fàtt maama mooy sama trondo Alhaji Modou Tandian ah, d' <laughs> sama xew-xew bi ma defan la 14 septembre macha allah waaw ki fi nekk xalifa xalifaam mm-hmm. seen xalifa moom laa ko dicté woon mooy sëñ Omar Tandian. sëñ Omar Tandian <laughs> effectivement Baye Niass moom xam naa ko bu yàgg. wallaay wallaay vraiment mu ngi fële ci France. waaye tout le temps euh, mhm. euh, na ñu nekk ku nekk Dakar te dégguloo turam. Mhm. néew na macha allah. effectivement tey doy na si adresse. Mhm. dëkk boo boo demee si dëkk. boo nee famille Cissé. boo ko waxee ñaar du ñett. te waxul lañ. wanoon la fa nga jëm effectivement effectivement macha allah loolu adresse. na si sant bu baax. di si kon daal xaar ma fàttali sa sa coordonnées yi. Mm-hmm. bu nekkee ne géejawaay la. 77 euh, la. 617. Mm-hmm. 70 44. Mm-hmm, mm-hmm. foofu tamit mën nañu fa amee téere bi. 77 téere Wadduha ak yooyu ne si pharmacie bi yëpp fa tabaarakala mën na fa pharmacie bi yi ci nekk. pharmacie bi bëgg a yombalal ñëpp rek. nañ koy waxee ci seytaane bi téere mooy mucc ak yokk yàlla defal ko ñëpp. effectivement mooy tax yooyu nu defar ko ngir fu doomu aadama nekk tey teewoo ko rek mën a yomb. Mm-hmm. parce que bii cuuraay seytaane. téere 500 francs la. Euh, su nekkee ne xale boo xamante ne ni dafa bëgg a mokkal gaaw a ci wàllu kiis lay yëngu. boobu moom 4500 la. mooy junni boo xam ne lañ la ciy delloo mhm. lii de moom war na ko ëpp ndax xale moom boobu wallaay ndeysaan wallaay su nekkee ni nga xam da bëgg aar sa oto mhm. ndax wax naa la ko sànq mën nga yor oto rafet tam ñu naan da koo am wala da koo leb moomu ko <laughs> boobu quatre mille cinq cent la mhm. eh, moom mooy eh, juróom-ñeenti téeméer quatre mille cinq cent eh, su nekkee ni aussi pour aar kër boobu moom sept mille francs la ba nga xam ne daal saa saa saa duñu ko ti nag seen point e seen adresse mu ngi nekk soixante dix neuf cent vingt 23. 75. 70. 922. 23. 75. point 1 si station yi. ci station yi waaw d' accord bu wootee rek dinañ ko woon dëkkuwaay ba yii fi nekk yëpp. macha allah bu dee Rufisque nag Rufisque moo nekk 77. 262 suñu jigéen Soxna Aram 36 28. <laughs> <laughs> <laughs> kon soxna Aram ñu ngi koy ziare. bu baax wallaay ndeysaan ku baax la macha allah. nu ngi koy 77 262 36 28. nañ la. waaw man euh, maanaam xam naa ne dinaa demaat ci benn ndax xam nga yonente bi doon na wax ragaluma liggéey ragaluma euh, jinne ragaluma seen ñu ne ko loo ragal mu ne cat. Mhm. wallaay ndeysaan. xam nga cat aussi musiba la. waaw bët ak làmmiñ. waaw ne ko cat. Hmm. baat ba rek euh, tegtal la si ne. cat bu tegee si lu nooy day bann <laughs> boo tegee catu garab sax nga daanu. wallaay wallaay <laughs> cat macha allah te yaram lépp dafa nooy. Mhm. lu cat bu sa cat tegee nag day bann. dëgg la tegtal la si ne macha allah lu jar di muslu la. Mhm. lu jar la gis nga kaddu kàllaama rek danay am cat. Mhm. mooy tax di wax yenn wax yu diis yi. te macha allah bokk si wala tabarakallah. yooyu it eh, luy jar di tàmm la. ngir looy wax rek cat bañ say cat bañ say am cat danay gàllankoor nit gàllankoor yu doya doya doya waar seex mhm. si dinaa koy wax la fa nekk si wërsëg mën na di wàññiku mhm. si wërsëg ba jeexee mu jël yaram bi mhm. fa tawarak la bu fekkee ne bii loolu am na nag da ngay gis ñoo xam ne seeni taxawaay seeni bi daway amee cat xaj na amaana mën nañ koy sangut waaye su amee ay weer day mel ni kawar ba nga wat somé ay wèr day saqat mhm. day laaj ñu laalat ko effectivement dana bok si le sey dimbalé nit tamit moy xam sa sarax lo am am solo la mhm. bo gisé ñun yalla dimbalé nañu nak nan koy waxé nit bu nit numéro la mhm. dan nan code ba man nay sarah. sarax moy tax dinay new loolu ñaanal nit te setun la nga ne ay buntam si lay doon ay saraxam dina ko xit ku nek da nga am lo xamne say sarax la fa la nan ko comme ni ma ko tuddee léegi rek boo doon jël téléphone yi téléphone benn du si bokk morom jokkoot. effectivement bëril sarax nan koy waxee sax. Mhm. sarax danay eh, famu nangam xam ma nu ko waxkat yi di waxee. déegu ñaaw ah, mu ngi noonu. Ah, bu bu réew li sembal. waaw danay am solo. Mhm. Euh, macha allah yor lu ñu bëri soxla. Mhm. te macha allah kenn du lekk sa dinañ di wax ne ku lekk sa ñaq. kàddoom lamiñam dootu la wàññi. waaye sarax nan koy nan koy. nan koy nan koy bari mhm. tey di yokk di muslu. Mhm. moo xam looy jàng la wala looy jëfandikoo di koy sangu la. Mhm. dinaa koy wax lépp looy muslu si seytaane léemul rek. lépp lu sa bët wala làmmiñ bu ay yàlla mën na la si dimbale. falaqe ak naa si xaj na ñu bari tàmm nañ ko. lu rëy la lu ëpp xeeb la. fa tabaraka la am na si yeneen yoon tamit yoo xam ne. inna batsha rabbika la sadidun bind ko téeméer fukk ak benn utal téeméeri xeer ak fukk ak benn di koy sangoo moom it fa la day raxas cat day raxas cat wen yakadu la si na kafaru bind ko ak ràbbante ko juróom-ñaari fatihatul kitab boo paree fay sa juróom-ñaari safara. di koy sango it fa tabarakalaa dinay raxas cat ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bii. am na solo allah luy raxas cat la. boo gisee dañ ne làmmiñ gémmiñ famm mhm. soo ko xaddadee day doon cent vingt mhm. te si biir gémmiñ la làmmiñ nekk nu nekkoon bismillahi rahmaani rahim boo ko bindee cent vingt mhm. da koy jëfandikoo yàlla danay lay dimbale ba làmmiñ ju lay topp loolu xadd yàlla na ko ñëpp yàlla na ko ñëpp jariñoo nuy wax suñu yéene mooy ñëpp mucc ñëpp yokk dëgg la fa tabarakallah mais cat lu jara jara jara muslu la tey luy baax la lool nit di xam bunti saraxam luy baax la lool tamit nit di faxasu <laughs> da ngay gis yenn saa yàlla dimbale na nu am nay toccal yoo xam ne nu ngi koy def. Mhm. nga xam ne lépp lu newoon si yaram rek. daf mhm. koy faxas. macha allah nit daf koy def bu xëyee rek dina yëg ne. Mhm. dana yëg ne dana am lu mu yëg. si yaram bu woyof. dinaa koy wax comme ni ñu koy waxee rek safara duna kenn damay lakk waaye boo ko laalee yow yaa naan lakk naa. <laughs> wallaay wallaay <laughs> waaw. yooyu moom yu yu lu lu lu wér la mhm. te macha allah ñi yàlla dimbale ñëpp ñu jëflanteeg ñoom si daara ja mhm. eh, am na lu am na lu nu si xam. loolu am na solo. Mhm. loolu am na solo mais fii moom tàmm ñu di wax macha allah <laughs> xanaa kay sa taay baas bi rafet mu ne tuddee naa la ko sa booti bi rafet tuddee naa la ko. ñoom loolu su ko defee ah, ñooñu loolu. wane wane wane yu bëri. yëpp nga wane ko. Ah. bët bu nekk di la xool. ah kooku waxul yor xelal tamit xol xele bu toll fenn fi jàngaloo ko dara takkaloo ko dara. mu dem si xew ñëpp di koy awante. te luñ ko wax mu ne tuddee naa la ko <laughs> man ko yaa bëri turandoo <laughs> <laughs> waaw. waaye daal fa tabarakallah lu lu jara jara jara muslu la. lu jara jara jara muslu la mais foofu dinaa def benn parenthèse. xam mhm. nga euh, sëñ Mara. Mhm. dafa am leneen lu ma jaaxal ci askan bi mooy. Mhm. xam nga da nga gis ko xam ne man gëmuma sëriñ ah sëriñ daal dañuy nax dañuy mais yow bu demee ba ne kàkk ba nga xam ne sa mbokk yi dem nañu fu nekk ngeen dem bëgg a delluwaat ci sëriñ bi yow kay bu gëmul bu ne kàkk toogal rek wallaay wallaay dafa war a gëm sëriñ sa yàlla la war a gëm <laughs> waaw ba pare def tawassul uh-huh. def tawassul bu fekkee kay ñaan wala kay tuddee ñaankat wala sëriñ mm-hmm. lu mënta yor lu lu lu lu yàlla yorul dëgg la dëgg la mooy tax Eh, bu ne gëmunu nangam rek. Mm-hmm. ñaari ñu si bëri macha allah. Hmm? da gis nit day ñëw sa daal ja naa ah alhamdulilah lu mel ni laa doon wër. Mm-hmm. ndax man dama bëgg ni bëgg arxuraan bëgguma leneen. bëgguma lii mm-hmm. bëgguma lele si xam ne xam nga man xam naa la mais day jafe pour ma wax ci yow ndax damay tuuma damay dal ci kaw ñi nga xam dañuy animé émission yu mel nii. da ngay gis koo xam ne day def. promotion sëriñ bi di ko yu di ko fi di wax ba wax lu nekkul ci moom. wallaay mais bàyyi ko promotion xam-xamam def promotion. mooy man xam naa la man ko doon waxanteeg. léegi benn benn kilifa. ne mhm. jamono ji ku nu nax. Mhm. ku nu nax rek daf la neex. dëgg la wallaay nan gëm ne yàlla yàlla. ka mhm. ngay fekk mun ne man la man naa man naa mën naa. nee naa mënta lenn mënta na si loxoom. bu sobul yàlla. ba maa tasaawu na ilaa incha mooy tax nan gën a delloo mbir yi yàlla. te xam ne alxuraan lépp barkeel. dëgg la bu nit indee aajo ñëw nga jël la ngay war a jël sa moom. Mhm. nee naa bu fekkee lu muy dàq la. Mhm. bu fekkee lu muy ñoddi la. Mhm. yooyu yëpp bu fekkee si yoonu alxuraan nga koy jaarale. lépp lépp danga koy delloo yàlla. dëgg la def tabaruk si alxuraan. bi nga xam ne bii amul lenn lenn lu nit di sàkku te du ko fa fekk. su gëm gëm ba. wéree. Mm-hmm. su pas-pas ba dëgëree. Mm-hmm. pas-pas ba nag fa tabarakalaa mooy la may wax rek mooy ka ka fa ñëw xam ne. mbir yi yàllaa ko yor. dëgg la <laughs> mbir yi yàllaa ko yor loolu am na solo ma fàttaliwaat mbokku auditeurs yi rek ne rajo Almadina FM ngeen di déglu 100.8 euh, seen émission Wadduha ki lañ koy présenté Cheikh Fall Sow ànd ak ki nga xam ne moom mooy Mara Cissé di borom xam-xam dëkk fële ca Géejawaay euh, di wax ne bu jokkoo bi képp koo xam ne yaa ngi déglu émission bi te bëgg a participer rek mën nga jaar ci 88 628 18 28 88 628 18. 28 même téere bi tamit mhm. kitaabu Wadduha mu ngi fi dinaa ci mhm. dugg tuuti ci kanam mhm. mais balaay boobu dafa ay question yoo xam ne dama ko fay def mooy xam nga léeg mu metti lool ba nga naan oh, te boo encore rek metti na. wallaay ndeysaan nga gis ko xam ne buntu yëpp danaan kàkk. wallaay ndeysaan wallaay wallaay fu mu ko lijjantee mu tëj. wallaay wallaay wallaay ni ñu koy wax jàngoro yi jàngoro yi poos. mu ngoog. wallaay tawatu yaram ak tawatu poos. Ah, la te muy tawat bu yaatu tamit. dinaa di wax ne julli dafay war di ñaan xéewal di ñaan sutura. ndax dinaa di wax ne macha allah ki nga xam ne bii euh, ànd naa ak yow di dox ba mu yàgg sa portable wadd mhm. mu for ko. Mhm. su tuuti lii maa nekkee sa moom rek dana ne la sëñ seex. li mhm. sa portable la bu dee séeréer la di du ko waaye bu fekkee <laughs> bu fekkee séeréer la boo xam ne. du ko def pas-pas bu dëgërul te suba amagul lu mu mburu. atta ne ne ah kii de war naa see mën a am nangam. xaaral ma ngembal ko la ñuy wax gaa yooyu la ñuy utiliser. <laughs> ni ni ko ni ko waxee rek kàddal faqra an yakunu kufran. mooy ñàkk. Mm-hmm. dañ ne xawoon tuut rek ki nga xam ne dafa ñàkk xawoon tuut rek mu weddi. Mm-hmm. fa tabarakalaa mooy tax eh, am koom danay gën a dëgëral pas-pas. Mm-hmm. fa tabarakalaa dinaa koy wax ne séeréer bi nga xam ne bi suba wóor na ko ne amagul lu mu jëndee mburu suy naafilee teew la ga nay. man nay bañ a mat lool. man mii de bu ma ñàkk xaalis sama julli nga koy xamee. <laughs> fa tabarakalaa comme noonu nga ko waxee rek. Eh, yal na yàlla. yokk mm-hmm. ko bu baax a baax a baax mm-hmm. dàq gàllankoor yi fa tabarakallah amiin eh, yokk barke dinaa koy wax ne lu bëri bëri lu ni doyadal mm-hmm. mooy barke dinaa koy wax compte barke nan koy yokk sabablu dinay tax loo sos nu mu toll rek sutura am si ba macha allah nga mën say am tëdd ak tibb ak sangu. mais bu fekkee ne bi la ko sos nga mën ci am noo ci waxaate tëdd ak tibb ak sangu. loolu am na solo. nga xam ne loolay lépp tëdd mooy dëkkuwaay. Mhm. tibb mooy la ngay xewloo. Mhm. muy ñetti repas mhm. sangu mooy la ngay mën a def si sa yaram ba boo génnee macha allah am loo nu mën laa xool. yàlla yombal ko si yàlla yombal ko si ñëpp te macha allah mbir bu nit nekk te mu ànd ak barke rek loolu dana say yomb. effectivement waaye su fekkee la ko lépp. wuruj la mhm. la ko sos lépp dil la mhm. la ko sos lépp uh, naafeq la ak leneen ak leneen mhm. noon ngay na ko benn waxkat waxe rek ne alal alal ju lewu teg gan ak dof nu baal ma si kàddu gi nooyem dëgg la <laughs> nee na si ñëw du tàggoo buy dem du tàggoo dëgg la kon fa tabaraka la eh, nan di gën a sàkku barke amiin di gën a sàkku it lu lew lépp di gën a sàkku it ngërëm ki nga xam ne yàlla defal na ko ndimbal. Hmm. muy dundandoog wayjuram muy jéem a sabalu ba am ba seen xol di sedd sa moom. Hmm. lu am solo jigéen ja nekk ak jëkkëram tamit muy góorgóorlu ba macha allah. Hmm. xoolu jëkkëram di sedd sa moom. fa tabarakalaa danay waral lépp lu lu lu mu njaboote rek. Eh, tekki dana leen yomb. am dana leen yomb. worma yi dana leen yomb. yooyu nu <coughs> yokk kersa tamit. gën a wàññi ñàkk kersa rawatina mbedd mi. dinaa di wax sëñ Seck da ngay mm. gis yenn saa yi koo xam ne. Mm. la ko yàq xamu ko amaana foogu ko woon sax. dëgg la ndax nitu yàlla ak nit ak yàlla dafa am koo gis rek nitu yàlla la ndax yàlla bind ñëpp. dëgg la waaye nit ak yàlla loolu leneen la. effectivement te mbedd mi lu lay gis. Mm-hmm. mais ñàkk kersa danay tax nga wax koo xam ne bii am na lu yàlla def sa moom. Mhm. te maa ngi lay waatal billaahi la si laa ilaaha illaa la si kàttanu yàlla ak man manam dénk na ñeenti baat rek mhm. ñeenti baat. Mhm. comme ABCD. loo xam ne bii lu ne lu ne lu ne lu ne si kàttanu yàlla ak man manam man nañ ko siy def. effectivement amaana dénk na ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. ñu ëpp loolu. mooy tax koo gis rek warmaal ko. dëgg la koo gis rek warmaal. effectivement day gis koo xam ne lu tuuti rek mën na koy tëj giru dundam. dëgg la. ndax la la la la. te loolu les gens ne sont pas conscients de ça da ngay wax mu ne ah kii du yàlla te ba pare nga koy tooñ. <laughs> allahu akbar am na deret yoo xam ne ëpp nañ di yëngal. dëgg la wallaahi am na ñoo xam ne seen deret bu yëngoo. Mhm. mën nañ lay jéggal sax waaye yàlla dénk na leen loo xam ne faaw ñooña dinañ la xisaab. Mhm. mooy tax loolu nañ ko gën a yokk doonoo yéene ñëpp jàmm. Mhm. moo tax laay biir ba bu nu. am na solo nu nu. wax ko ñu nu ko war a wax. am na solo kon ma fàttaliwaat rek 88 628 18 28. 88 628 18 28 képp koo xam ne bëgg nga participer ci émission bi rek mën nga jaar ci 88 628 18 28. bu dee mu bëri bëri euh, waaw ma woo euh, kitaabu muy prix bi. ko. prix bi vingt cinq mille la. waa kañ juróomi junni la. prix <laughs> bi day am nag yenn saa yi yenn juñ ñàkk yenn séeréer yi njort ne prix bi xaw nay seer. <laughs> may gis naa fi livre buy jar soixante quinze mille quatre vingt ma leen di wax ne wallaahi billaahi la si laa ilaaha illaa huwa yàlla xam na ne la si nekk si nawaafil. Mhm. secret naafila yooyu rek. Ah, man gis naa ko te maa ngi si ak bi nga ma may. mu ngi nii <laughs> cent mille franc ko. waaw dafa fekk nag macha allah. Mhm. nee naa lii ku ko gis te la donga daaraa ko def war nga xam ne am na donga daara boobu am na. léegi dama lay dama lay laajaat laay wax nga téere yi ñuy jàngee école. Mm-hmm. am na téere yu ci jar soixante quinze mille. Mm-hmm. am na téere yu ci jar quatre vingt mille. Mm-hmm. Euh, ngay fay aussi tamit cent mille francs ci école par mois lan moo tax. ki ma ko doon liggéeyal daf ma waxoon ne ma bul ko def lu quarante cinq mille. ma ne ko day ëpp te macha allah bëgg naa ñu ñu bëri barkelu si. ndax ni ko waxee comme que wax ay njariñ mm-hmm. ñu bëri du ñuy woo di ñuy laaj luñ fa waxoon wala nu ñuy woo di laaj ay yoon mm-hmm. te nit ñi macha allah ñu bëgg lu baax lan dëgg la bëri na si ñoo xam ne bii mm-hmm. lu yàlla rek la ñor. ak euh, mais nit ñi même Kaamil boo leen ko jaayee deux mille cinq cent ñu dafa seer. nit naa ko Kaamil wàññi na ko deux mille cinq cent mu ne ko doo ma ko wàññi defal ma ko ñetti téeméer <laughs> man ko <laughs> Eh, ko ah. loolu la mais eh, nee naa ku ku ne donga daara la nu ku ko xool gis na liggéey bi mel. Hmm. nga xam ne bii macha allah kooku am na fu jaar. <laughs> man bu ma xoolee ay téere <laughs> Nostradamus. Eh. ay Descartes <laughs> ay Jean-Paul hmm. euh, hmm. ay kii téere yi jaar te presque boo xool sax si jullit moom xam naa ne feesul. sant na bu baax nag macha allah ndax ne na ne cinq continents yëpp dem na fa. nee benn. continent laa déggloon ne àgg na fa te semaine bi am na ku ma woo ma nga ba Australie. incha allahu rabi ne am ma ngi kitaabu Wadduha. am na solo nga fàttaliwaale képp ku bëgg euh, xam dara si Mara bu defee 3W point wadduha point org. jox ma ko 3W. point wadduha point org. wadduha point org. Ah. wadduha ñaari D la. d' accord ñaari D A D D U S A. point org. waaw point org fa tabarakalaa nu siy gërëm bu baax. www point ñaanalit Wadduha point org d' accord. rek nga gis ko foofu. Eh, Fata boo ko lépp loo soxla si Mara Cissé boo boo fa duggee da nga ko fekk. d'accord parce que man maa ngi koy kii bi ni ci Google. <laughs> Ah, boo connecté ah, ah. woon yi da nga koy euh, gis. ci Wadduha mm-hmm, mm-hmm, kii bi nii. Mm-hmm, kon ma fàttali fekk ay émission yo xam def nan ko da nga fa gis ay interview yu def ak ay journaux. da nga fekk ay émission yo ñu def ci télévision. effectivement parce que man koy gis ni ci Google bi. Euh, Wadduha point kii bi nii. waaw ma fàttaliwaat mbokk auditeurs yi ne Almadina FM ngeen di déglu 100 point fi ci. Bourguiba bu dee Kaolack la 98.8 seen émission Wadduha ki leen koy présenté di Cheikh Fall Sow ànd si ak ki nga xam ne moom mooy Mara Cissé di borom xam-xam dëkk fële ca Géejawaay mhm. bind téere bi nga xam ne tamit ñu ngi koy wax kitaabu Wadduha mhm. di weccee ko juróomi junni mhm. euh, je ne kuy jënd téere <laughs> téere waaw ah, loolu dana ma dimbale waale prix ah. téere bi waaw laa a def kii bi nii wala mu ngi nii li <laughs> ngay laabale <laughs> tegginu ñaan yeneen yi nga xam te loo mën def pour xam sa diine fajum aajo wallaay ndeysaan lépp mu ngi si biir peut-être que am na nawaafil yoo xam ne bi képp ku ko def waaw képp ku dajeeg moom te gëm te gëm sa bopp fa hmm. tabaraka laa lépp loo si dog yàlla daan la ko def effectivement lépp loo si dogg. effectivement ay bunti nawaafil yu am solo. ba si mhm. salaatu tas kayfiyaat yi spécifique ah. yoo xam ne mu ngi ci biir. Mhm. waaw mhm. donc defe naa ne daal. Eh, lu luy dimbale njaboot tamit. waaw commencé nan ko waxee ci sax yaa ngi gis fii néew kattan. pour la ah. vérité la mooy ñi nga xam ne presque amuñu réseau. ñu connecté wu dëgg la loolu moo xam naa damay bàyyi ñu dënd ko ñoom. ay ñu xool li ci nekk <laughs> <laughs> mu ngi nii. ak loo xam ne day wàcce lépp luy tawat. yooyu it mu ngi si. effectivement eh, ma ne fa tabarak la. Eh, ma kiis. xamsun alxaaf. Mhm. xijaabu rasul. Mhm. nga xam ne mooy sayful ahda jaasi noonu. effectivement nga xam ne boo koy jëfandikoo lépp lu la nit def day dellu sa moom. boobu am na solo loolu it ma nga ma nga fa. yooyu yëpp macha allah noo def ko francais ak arxuraan. Mhm. nan koy waxee sunu yéene mooy ñëpp mu ci ñëpp yokk. yokk ñëpp yokk. moo taxit it macha allah lu jege ñaari at nu ngi si woon ak ñu ngi si doon jàppale ñëpp. nu leen si gërëm. sama rakk yi nekk kër ga ku mel ni si Ahmed Tidiane Gadiaga mhm. ak Samba ak ñeneen ñun si doon jàppale. Mhm. sunu mag sunu xarit sunu référence di ku am solo si ñun. Mhm. Xaadim Rasul Guèye fa tabarakalaa tamit nu ko si sant bu baax. moom it eh, taxaw na si. wërsëgam taxaw na si temps am. Mhm. tabarakallah na solo. Mhm. Euh, kon ma fàttaliwaat léegi rek ne bu mu jokkoo bi 88 la 628 18 28. 88 628 18 28 bu dee bitim réew la moom mën ngeen def euh, double 0 221. 33 841 20.

Mm-hmm. ak lii tax su du fàtte. Mm-hmm. ñaari ñaari kayfiyaat ma fa nekk. effectivement moom it yëpp di quatre mille cinq cent. Mm-hmm. ak pour aar sa oto tamit. soo ko jëlee kiirlaayu daamar. moo xam ki am daamar wala ki tukki lu bëri si daamar. loolu fa tabarakalaa kiirlaay ba quatre mille cinq cent la. am na solo ak kiirlaayu kër tamit. Ah, dinaa koy wax wallaay lu am solo la. kenn du bëtt nag kon donc seen coordonnée moom moo nekk bu nekkee ne géejewaay la. yokk si euh, kii to li aar njaboot Euh, galaaju njaboot dafa fekkoon ñëwagul woon si papier anti viol mooy lañ loo xam ne koo jëfandikoo mhm. nan koy waxee fa tabarakallah euh, feek nu koy xutbaal sëy mhm. mu bëgg ko nu forcé ko kenn du mën a sëy ak moom xam nga xale yi dem dañoo wow bët surtout xale yi jigéen ñi <laughs> wallaay wallaay parce que dafa am baat yoo xam ne dañ koo génne ba mara xam naa nga jégal ma yaay bañ <laughs> yaa ko tere neex ci yow des na si yow xam nga musiba la wallaay la ma doon wax léegi ne nan delloo si kersa <laughs> waaw xam nga loolu am na mag ñoo xam ne ku leen ko deewoon si mag ñu ne barsàq ku la ko deew nu ne. <laughs> mu ne la xale yi ñamuñu ko <laughs> ah, wallaahi kersa. waaw kersa ko yokk delloo si. kon xaar ma jox leen coordonnée bi rek 77 <laughs> euh, la. 617. 70 44. 77 617 70 44. beneen bi nekk 70. 104 79 17 70 104. 79 17 bu point E la. Mhm. Mhm. da ngay def 70 922 23 75. 70 922 23 75 point E kan moo fa nekk. point E sunu waajur na fa nekk Alxaaji Alfousseyni ah, Sagna. Alfousseyni Sagna ak Soxna Fatou Ndiaye. ñoo ngi koy ziare bu mm-hmm, baax. Mm-hmm. bu dee Rufisque la Tëngéej. Mm-hmm, moom soxna jigéen Soxna Aram Ndiaye. Soxna Aram Ndiaye ziare nañ la. <laughs> yal ko yàlla fay yiw. wallaay wallaay 77 la. 262. 36. 28. 77. 262 36 28 ñiy woote ci portable xam leen ne mu ngi nekk en direct te ngeen xaar ba ñu mu pare di di nuyu yaayu Mouhamed Mara Cissé mhm. di nuyu di leen siyaara incha <laughs> eh, eh. léegi xam naa ne bala maay ñëw ci ñi nga xam dañoo stéréo te am doom mhm. damay ñëw ci Bayra xam nga am na ñoo xam ne moom safuñu kenn mhm, xam nga am na ñu ne sax bayre dafa war a nag muuslaay muuslaay ndax muus mi dafa dem ci sëriñ bi ne ko ñaanal ma ma am bayre ba mu tourné euh, jinax dafa dem ci sëriñ bi ne ko ñaanal ma ma am bayre ba mu tourné mu gis muus. Uh-huh. mu dellu si waat nag sëriñ bi boole ci boole ci muuslaay. <laughs> wallaay wallaay kon foofu <laughs> waaw sa <laughs> du du du ah. du ko fekk de. waaw <laughs> ndax li léegi euh, waaye maanaam nga dégg ñoo am man daal gaañ bëgg naa bayre dëgg la wala man mm. daal bayre kii bi mais muslaay kenn du ko wax bayre ba rek la ñuy tudd. wallaay wallaay lu am solo la te ku muccu nag àgg. dëgg la daanaka ku muccu rek. Mm. Euh, da nga am bayre fa la mooy tax yooyu yëpp mm. ay waay la bayre fa tabarakallah dinañ ko indi si pharmacie Wadduha. Mm-hmm. si kàttanu yàlla moom it. si kattanu borom bi lu passé talata waaw nañ jël kii 88 628 18 28 mbokk meloon ko mm. rëcc na mais bu del seere ñu daal di ko jël ci 88 628. 18 28 kon bàyyi bi aussi après dang koy. préparer inshallah mu koy préparer ngir bëgg mu yomb si ñëpp rek. d' accord mooy looy xam ne danay tax nit am xayba. si bëtu nit ñi. Mm-hmm. mas naa koy wax. ndeysaan mais xanaa kon yow nga bëgg par exemple ngay jox gaa yi ñuy defal seen bopp. Eh, déedéet yooyu macha allah yu nu defar la. def ko si enveloppe paquet ku nga xam ne. tout jël jëfandikoo rek. d' accord du looy jël copier. ok macha allah foo yemi nekk sax mu ne si ko copier. d' accord di wax ne bëgg mu yomb ne nit ñi bëri na lu nu bëgg waaye xaj nga xamun nu nu koy utee. dëgg la te yàlla daf nuy dimbale macha allah. Mhm. nu wëllëranteeg ñu bari ñu bëri it yàlla def nu bokk nu am yaakaar si ñun nu bokk yaakaar yàlla. Mhm. mooy tax dañuy bëgg jàppandal leen lépp loo xam ne bii dinañ di jàpp seen itte la. dëgg la mooy tax yooyu defar nañ ko mbind yu am solo la. mbind bu waaw 88 628 18 28 nañ jël mbokk moomu mbokk melo. bisimilah. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw ah, na ngeen yàlla na yàlla nangu. ñu ngi rafetlu waxtaan bi waxtaan bu am solo la. jërëjëf foo wootee ku baax. ah Kër Mbaye Fall. Ah, waaw jërëjëf. allo Kër Mbaye Fall. waaw ñu ngi lay ah, doon laaj est moom day seet ànd seet. allo. waaw waaw. waaw moom boobu moom seet en ligne <laughs> Ah, waaw même duma seet euh, kii or antenne istixaara <laughs> la ni ah, def. waaw istixaara la ni def li ni diinu may. ah waaw tur tur yaay date de naissance. yaa ngi dégg uh-huh. waaw bu nekkee ne mu ngi dégg moom uh, seet en ligne duñ ko def moom mooy que ne boo kiiyee uh-huh. fekk ngay jël numéro bi nga coordonné ak mm-hmm, moom mm-hmm. nga joxe sa tur sa tur yaay su ko defee loolu moom ndax julli am na bu ñuy biir am na bu ñuy yellu wallaay wallaay kon mu ngi noonu bu nekkee ne yaa ngi déglu Kër Mbay Fall 77 <laughs> mm-hmm, la 617 70 44. mo xamna naa bi moo mhm, mhm. wala 70. 104 79 17. dafa bob moy ce coordonnée. dëgg la yoy moy dara ja. Daara 70. 104 79 17. buntu en face buntu lycée mam Limaamu lay bu Géejawaay. Mhm. ma si kattanu borom bi. d'accord ludul dul inshallah incha ku fa rek yalla man nay def. fu mu laajte Mara Cissé dinañ ko woon dëkkuwaay bi si kàttanu yàlla. Mhm. Mhm. ah parce que tey nag am na yow mhm. defe naa ne ñëpp la xam sax <laughs> ñu bari <laughs> xam nañ la ci kii bi <laughs> kon damay fàttaliwaat rek ne seen émission Wadduha ngeen di déglu ki lañ koy présenté Cheikh Fall ma jël mbokk moomu 88 628 18 28 mbokk meloon. waaw sama sëriñ. alhamdulilah. mu ne fu ne Modou Thiam Thiamène. Modou Thiam Thiaroy wàññil sa rajo tuuti rek ñu gën a déggante. Thiam non Thiamène la nag Thiamène. Thiamène ah Thiamène boori Louga. waaw ñoo ngi lay dégg. da nga dal da nga dalal nga ko am xam-xam. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw am xam-xam man ñoo ngi ñoo ngi rafetlu xam-xam. Mm-hmm. jërëjëf. waaw ku baax la dañ dañ ko déglu toujours fële ñu ko déglu fële xam nga fàtte rajo bi. Eh, waaw siwal. 98 point 0 ku baax la de. ku baax la jërëjëf. waaw ku baax la kay waaw loolu bu nekk nu ngi fi incha allah. Ah, yal na yàlla barkeel la. yal na ah, yàlla barkeel am na ko mooy wax naan ma si ndax anti agression nag amul. Ah, <laughs> alors mbokk mi allo. bisimilah. allo. waaw xam naa ne déggante wuñu hmm. bu delsee rek ci 88 628 18 28 ma fàttaliwaat leen ne coordonnées yi nga xam moom la ñu mën a jotee Mara Cissé même ci téere bi aussi tamit ku ci hmm. soxla rek vingt cinq mille la am na cuuraayu seytaane hmm. bu séeréer yi cinq cent francs la anti séeréer <laughs> mu ngi noonu am na aussi tamit kiis ko bëgg a mokkal wala loo jàng dootoo ko fàtte quatre mille cinq cent la bu nekkee ne am na boo xam tamit kiiraange oto la boobu quatre mille cinq cent la am na aussi tamit kiiraange kër sept mille am na tamit boo xam ne anti viol waaw gàllaaju njaboot mm-hmm. ndax gaañ itam am na ñoom sax dañuy liggéey xale jigéen ñi di leen tëddee de wallaay wallaay wallaay macha allah jamono bi ñëpp war a ñaan mucc dafa rawatina ni ma koy waxee moyen de communication yi ni mu yombee léegi dëgg la nit mën a dugg see kër toujours di waxtaan te doo ko gis dëgg la doo ko yëg dëgg la may tax nag bu la yàlla mayee njaboot yi jiitu si dëgg la wala si jamono yi jiitu dëgg la madame Dieng ñoo ngi koy nuyu baax a baax a mm-hmm. baax mu ngi wax ne ndax amoo anti euh, kii agression si la <laughs> waaw si kàttanu yàlla xam ne am na benn kayfiyaat boo xam ne benn jat la mu ngi si kitaabu Wadduha. waaw eh, dinaa koy mu ngi si téere bi wala mu ngi si kitaabu Wadduha. Ah, moom boo gisee loo ragal rek da koy jàng. Mm-hmm. nee na même bu fekkoon def lu urs si dana am lu dox sa digganteeg moom. Mhm. si kàttanu yàlla te mu ngi si kitaabu Wadduha. kitaabu Wadduha mais xam nga Baye Mara aussi léeg nga gis ñoo xam ne dañuy sëy. Mhm. mais pour ñu am njaboot daal dafay xaw a tëloo te souvent mën nañ def kii beeg yëpp daal du am benn gàllankoor boo xam ne war na tax ñu. am dëgg la dëgg la te eh, nan koy mhm. si gën. dëgg la mooy tax macha allah képp ku sëy rek la. danay nekk lool bànneex. Mhm. nga am taqandeer. mooy mhm. tax yàlla nag yàlla may ñëpp te leen ko may nu barkeel ko. amiin waaye sabab. waaw 88 628 18 28 am na ku nekk ci ligne bi mbokk mi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ah sëñ Modou Cissé. ah Gaye Gaye sëñ Modou. Ah, Cissé ñu ngi lay ziar jërëjëf yal na yàlla nangu yàlla barkeel na. amiin amiin amiin di ñaan yàlla yàggal la bu baax. amiin amiin amiin Gaye. yàlla may la wér ak gudd fan. amiin amiin Gaye amiin yàlla bala. damay sàkku daal damay sàkku si doomu aadama yi ñëpp képp koo xam si yaa ngi déglu bi yaa ngi koy déglu. Hmm. ma ñaan yàlla nga di nga découvrir kan mooy kan mooy Mara Cissé loolu rek laay ñaan loolu la loolu rek laay moom laay ñaan daal. jërëjëf jërëjëf Gaye xëy na xëy na xëy na nit ñi daal dañoo te moom dañoo xamagul daal wante daal kon alhamdulilah laam laam la dula kii wax dëgg yàlla. ak li ngay wax dëgg yaa ngi teg siraatu mustaqim. Hmm. waaw te te alquran kenn rek daal ngay liggéey wax dëgg yàlla. xëy na nit ñi daal léegi xëy na dañoo jaaxle trop trop ci rajo yi ah maa moom yéen maa nii nii wax dëgg yàlla wante kii ah, ma ma ma wax ne kii du kooku. da ngay rus yenn saa yi la yàlla waaw <laughs> kii léppam da kii léppam da daf ko wekk si yàlla. dëgg la waaw sama sëriñ léppam daf ko wekk si yàlla. sama sëriñ. Hmm. waaw léegi xam nga léeg-léeg ma ne gars yi gis naa dañuy yëngu ci wàllu ñaan fekk dañu leen war a ñaanal mu am ñeneen ñuy yëngu ci wàllu faj fekk dañu leen war a faj dëgg la loolu la am na dëgg la loolu moom am na moom wallaay wallaay loolu moom am na wallaay wallaay ñu am daal ñun moom daal kii ñu am nit ñi daal ñun gëm naa ne xamaguñ ko xamaguñ ko sax dëgg la billaah xol bi nag moom fees na wax dëgg yàlla man bu mu ne ma wax mais daal. jërëjëf jërëjëf Gaye. Gaye <laughs> nañ ñaan yàlla suñu borom yàlla na fi yàlla yàggal rek. amiin na yàlla fay. te di ñaanal yàlla may ko wér a baax a a baax a a kaw a kay jërëjëf jërëjëf te ku ne amin tam yàlla na la ci yàlla boole faj sa <laughs> waaw lu lu am solo la ndax mm-hmm. <coughs> dañuy wax ne eh, bala ngay wax bàyyi leen ko man ne war a man bàyyi leen ma mm-hmm. <laughs> effectivement euh, léegi bala ngay mayet war a lekk dëgg la yooyu yëpp macha allah mooy loola nga wax rek mm-hmm. bëri na luy nit di wax waaw am na koy fëgg 88 628 18 28 ñu jël kooku après ñëw ci lu mbokk mi allo allo na ngeen def alhamdulilah suma woote nag wante sëñ bi waxam bi sedd na suma xol lool. jërëjëf Yaren. fooy wootee ku baax. maa ngi wootee Grand Yoff. Mhm. jërëjëf. waaw wax dëgg yàlla kii moom ni muy waxee bëgg na ñëpp baax ñëpp baax la fi mu toll nii. Mhm. Mhm. walaay ndeysaan. waaw xam-xamam na fi ne xam naa ne. yàlla ya yàlla rek a koy fay daal man daal li muy waxee nii fi mu toll nii. sedd mhm. na suma xol te dinaa ko dem seeti. jërëjëf yal na yàlla barkeel. xam naa ne suma xol a sedd mënuma wax wax bu bëri wante incha allah rabi ka daal. Mhm. ba booba rek. incha allah jërëjëf jërëjëf. yal na yàlla barkeel jërëjëf jërëjëf yàlla barkeel la. jërëjëf yàlla barkeel. xam naa ne li ñu dese ci temps bareetul parce que kii sax mu ngi naan man temps bi jeex na effectivement. Ah, loolu moom day na waar parce foogoon commencé gun. <laughs> kon daal xam naa ne voilà. ñu <laughs> seetlu xam naa ne kon dañuy bàyyi rek nga tàggatoo mais eh, macha allah loolu ya eh, mbiru. jaboot yi doon wax xam naa bu nu dellusee danañ ko gën a yaatal. incha allah lu mbokk yi mhm. xam naa dinaa leen may 489 basmala. mooy tolloog Fatah. 489 waaw nan ko ku ko mën a bind ndox bu bëri rek di naan ba mandi mhm. yàlla mën na lay dimbale. noo koy def da nga koy bind. def saafara waaw da koy def saafara di koy naan. di ko naan ñaari couple bi yëpp nag. ah ku góor ak ku jigéen góor ak ku jigéen ki nu koy bokk di ko naan waaw nu koy bokk bu nu si naan naan ba màndi d'accord nu si yéene yàlla may leen njaboot mhm. fa tabarakallah yàlla mën na leen koy may yàlla dénk na nu si ay yoon it yoo xam ne yu ni togg laax la di koy xewlu yu ni def supp mhm, yàlla na si yoon yoo xam ne moom macha allah mhm. su waree am di nga xam looy teg sa bët la si kii bu waree mën a am jaboot wala bu ko warta mën a am mhm. loo xam ne bi da ngeen ni toog mu doon lu mu teg bëtam yàlla dénk nañu ko mhm. fatawarak la xam naa doon lu nu man a wax si kaw nu ngi ñaan yàlla mm, yombalal ko ñëpp sulu ko ameen mu ànd yàlla sàmm leen ko di ñaan yàlla yokk fi jàmm sutura xéewal comme neen ko waxee woon émission bi lu si jub nu si sant yàlla lu si safaanu nu ngi koy jéggalu yàlla di leen koy jéggalu jërëjëf di wax na yéene bi mooy àjjuma bu nekk rek nu ñëw fi di wettali kontaan ak yéen c'est seen émission Wadduha fii c'est Almadina 100 point huit. Hmm. di sant di gërëm bu baax sëñ Cheikh mi nga xam ne moom laa fi doon wettali konteel. Ah, ak sëñ Fall nañu man damay dingat sëriñ yi. ak <laughs> lépp rafet na sëñ Cheikh. jërëjëf <laughs> jërëjëf jërëjëf waay Mara basmala bi nag pour mbokk séeréer yi xam ko mooy bisimilah rahmaani rahiim bisimilah rahmaani rahiim bisimilah rahmaani rahiim bisimilah euh, di borom xam-xam dëkk fële ca Géejawaay Euh, téere bi nga xam ne bind na ko nag juróomi junni lay jar am na cuuraay seytaane 500 francs am na kiis aussi 4500 am na aussi aar kër 4500 ak aar tamit sa oto ak ñi nga xam ne aussi tamit pour jigéen xale yi jigéen ñi nga xam ne bëgg nañ leen aar aussi boobu am na euh, kon euh, damay fàttali rek coordonné Baye Mara Mara Cissé mooy 77 617 70 44 77 617 70 44 beneen bi nekk 70 104 79 17 70 104 79 17 amna bo le point E 70 922 23 75 70 922 23 75 77 262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

ëpp na njëgam juróomi junni ngir faj sa mbir Wadduha yàlla moo ci yoor yoor la léppay leer alaaji Mamadou Cissé Mara waa góor